cette fois-ci la volonté populaire la volonté populaire nga la waay yéen ñi nga xamante ne yéenay kilifa yi réew mi jóg leen taxaw ci bu ko kenn bu ko kenn confisque ñii di génn di jubilé ci mbedd bi nii c'est pas une partie c'est pas possible ce sont pas les membres de PASTEF ñi bokk PASTEF ëpp ñu ci réew mi wala bokk moomuñu réew mi kon ñii di génn di jubilé ni am nañu lu leer loo xamante ne jubilé nañ xam nañu bu baax li ñu nekk di jubilé nii donc bu leen fi yeewuwaat ci kanam ñun nag du ñu fi nekk diggante à être des sentinelles comme pas possible parce que on n'est pas des enfants ici tout le monde est mature nekkatuñu ay xale ay magum jëmm lañu bu ngeen bëggee nag vraiment vraiment jàmm am wax leen li xew li xew nag ñëpp xam nañu ko bu ngeen bëggee jàmm am ci réew mi loolu rek yitteel leen wax leen li xew ndax mun ngeen fi def leneen ñu yeewu suba. dara du am ñuy demaat liggéey mais c'est parti encore pour cinq ans yu gën a pire yi nga xamante ne moom moo fi xew donc réew bu demee bay wax na seen patriotisme jiite ngalawaay vous avez vécu dans un système ce système vous a tout donné on le sait vous le savez ce système vous a nourri sa système vous a blanchi ce système vous a enrichi ce système vousat a absolument tout donné mais si on assiste à ce jour au déclin de ce système ngalawaay nangu leen xam ne ah neexoon na de mais jeex day am sànq je l'ai dit ne on assiste au déclin de ces politiciens traditionnels quand on parle de xalifa Ababacar Sall nañu zéro ñu wax ñu Idrissa Seck nañu zéro on nous un Bassirou Diomaye Faye deux cent wax ñu un Amadou Ba cent parce que li tax Amadou Ba am sens c'est juste parce que y une très grosse machine qui est derrière lui bu tudd Benno Bokk Yaakaar mais bu demeewuloon noonu zéro sax du ko am moom li muy amay gën a tuuti zéro mais quand on nous parle d'un Anta Babacar sax buy am ay un ak i deux ci benn Anta Babacar Ngom nga xamante ne dix ans ci ginnaaw bu ñu delloo politiciens naturels yi wala politiciens traditionnels yi du ñu may dara dara dara dara kenn ci benn bureau vote c'était pas possible lii di xew nii mais maintenant si devenu possible ñu jël ko bi ju jàppale ma ci vidéo Diallo bi allo. salaamaaleykum. alekum salaam tonton Clédor. waaw Vito ça va. ça va alhamdulilah yaa ngi si jàmm. sant alhamdulilah. foo foo voté tey. man euh, Castor laa voté. Castor. Mhm. ni ma la koy waxee à chaque fois ban analyse bu global ngay def. waaw analyse bu globale bi. Mhm. mooy euh, y a une redistribution des cartes et une reconfiguration politique. Mhm. buy wane ni Pastef. Mhm. mooy cavaler seul en tête. moo fi ëpp poids politique. donte ci coalition bu yaatu la demee la demee. mais locomotive bi Pastef la. te bayre bi Ousmane Sonko la. donc ñoom. am nañu résultat jàll premier tour bu dara mënatul dindi. Mhm. donc euh, loolu mooy jàngat bu njëkk bi parce que résultat bi résultat premier tour la. Mhm. moo tax may rafetlu déclaration Macky Sall bi ne. Mhm. bu fi kenn publier ay résultats. kooku wax boobu waa APR yi ñoom ñoo ko moom. parce que ñoom tàmbal nañ ñu ay minuit une heure du matin ñu dem seen siège u parti boobu ñuy xeexoo. def fa conférence de presse ñoo ni am nañu nangam pour cent nangam pour cent. bu ko defee seen RTS ak seen soleil daal leen koy reprendre ak seeni journaliste parce que am na ay tele yoo xam ne ñoom lu ñu wax. ñu ni gongo. Mm-hmm. donc foofu la leen Macky Sall arafto mm-hmm. léegi nag résultat yi tombé. Mm-hmm. écart yi dafay yaatu yaatu boo xam ne. c'est irréversible maanaam kenn mënu ci dellu si waat gannaaw. ñoom nag am na seen ay militants ay Anita Diop ak ñooñu. ñu nekk di def dans la manipulation di génne ay chiffres ak ay faux PV. Mm-hmm. mais la réalité du scrutin li mu wone mooy dans les grands centre urbains mm-hmm. muy Dakar mm-hmm. muy Kaolack muy Touba muy Diourbel muy Ziguinchor muy Bignona Saint-Louis ba Kédougou Bassirou Diomaye écart yu mag a mag a mag a mag a mag la la la la la gagné kon jàngat bu njëkk bi mooy Macky mi ni woon le deux du fi xaar un jour de plus. Mhm. yàlla dimbali nañu ba ñu plier élection bi au premier tour. Mhm. nga xam ni le deux mën nañu am président bu bees bu prêter serment. nga xam ni moom Macky Sall passation bi muy bañ dina ko def déclaration de patrimoine bi muy bañ dina ko def. Mhm. nga xam ni du ñu am vide institutionnel parce que bu ñu amoon deuxième tour mu ni moom day dem le deux kon diggante bi foog ñu am fi président bu ko fi wutu. te kooku la kii kii ñëwaat di passé defal passation de service. Mm-hmm. kon loolu dafa doon perturber euh, suñu ordre institutionnel ci loo xam ni c'était la seule responsabilité Macky Sall bi nga xam ne. moom moo mm-hmm. ajoon élection yi. Mm-hmm. deuxième jàngat bi ngay am ci résultat yi mooy xalifa Sall bu ngeen di lim chiffres yi bu leen yem rek ci li Jomaay am ak ci li Amadou Ba am. mais bu dee Dakar. da di tudd. li taxawu dakaar am. Mhm. ñoom ñi nekk ay borom Dakar. Mhm. ñi ni ñoom ñoo gañeel seen bopp Dakar. Mhm. na ngeen génnee fësal chiffre yu ñu am dakaar ngeen def ci jàngat. xool ñaata pour cent la ndax ñoom ñooy borom dakaar wala duñu borom Dakar. parce que tey ji ku ci nekk tappal nañ la grade électoral buy wane li ngay peese lan la. kon fi mu nekk nii ñëpp xam nañu ku nekk lu muy peese. ci base boobu nag. président bi falu ca lay tëggaatee ay législative ak ay locales yi nga xam ni. Mhm. day refléter bëgg-bëggu askan bi. Mhm. parce que ñi nga xam ni dañoo voté loon Bamba Fall Médina. Mhm. ndax mu amoon ndax mu li mu amoon taxawaayu opposant gañe fa euh, euh, ku mel ni euh, Diop si. gañe fa ku mel ni Cheikh Ba. gañe fa ku mel ni nu mu tuddati damay damay Sey Seydou Gueye. gañe fa responsable politique kàngam politique gu yu bëri yu nekk foofu. Mhm. c' est parce que li mu amoon taxawaayu opposant moo tax waa Médina voteel ko. Mhm. mais dafa jël mandat ba daw dem ci Macky Sall. Mhm. ba noppi wëlbatiku di xeex opposition bi nga xam ni moo ko moo ko faloon. foofu Bougane la fa gën a war euh, bopp gis-gis euh, euh, gëm sa bopp plutôt. lu mel noonu la Barthélémy Dias def. ndax askanu Dakar dañ ko jàppee woon koo xam ni farouche opposant de Macky Sall ku ko dul may dara. Mhm. Ousmane Sonko imposé ko ci jamono joo xam ni Khalifa Sall mu bugoon bëggoon Rose euh, euh, soo am Wardini. Mhm. Euh, Ousmane Sonko imposé ko. Mhm. ba ñu fal ko bopp Dakar mu jël électorat jox ko jël ay nitam ñu des gannaaw ba ci commune Mermoz Sacré-Cœur ñu jël ay nitu Barthélémy Dias. tey di kooku wëlbatiku. ni moom moo gañal boppam kële du ci dara. Mm-hmm. bu noppi wëlbatiku di xeex ki nga xam ne moo tax mu falu. Mm-hmm. kon loolu yëpp nag euh, élec série élection yi dina continuer. Mm-hmm. ba ñu renouveler toutes les institutions comme ni ko askan bi bëggee u ci nekk nag jël li nga xam ni moom nga tollool selon ce poids politique. kon chiffres yi ngeen di jàngat dee leen ci fësal li Khalifa Sall am moom mi leaderu taxaw. donc loolu. Mm-hmm. noonu loolu laa gis daal euh, ci ci ci jàngat bu njëkk mais félicité. Mm-hmm. Euh, population Sénégal. Mm-hmm. particulièrement jeunesse bi ak diaspora bi. mais tonton Clédor effervescence bi am ci mbedd yi nii. xale yi di génn du ma ne xale yi sax dëkk bi génn di jubilé yi nii lan moo koy justifier. li koy justifier mooy écart yi. parce que xam nga ñun population yi dañu raw. population yi xam nañu résultat yi kenn mënut ko sàcc. Mhm. kenn mënutu ko changer. Diomaye falu na il a le pouvoir. Mhm. le peuple a le pouvoir. parce que mhm. c'est le peuple qui a conféré ce pouvoir à Diomaye à défaut de pouvoir le donner à Ousmane Sonko. kon ñi voté. waa Dakar yi nga xam ne ñoom nga gis parce que fii nga nekk. xëy na waa Ziguinchor tam ñu ñi nga xam ne la ñu voté xam nañ ko. la ñu seen bureau de vote xam nañ ko. man par exemple 16 heures laa voté. man toujours pour scruter mbalit bi pour xool yan bulletin moo fa nekk loolu premier euh, sondage la. Mhm. mais mbalit bi amul bulletin jomaay amul benn sax bulletin jomaay. dëgg la benn donc loolu indication la déjà. Mhm. donc ki voté ci centre boobu xam ni ñoom jomaay la ñu voté. Mhm. xam nañu dañoo gagné dañuy jubilé. bu ñu déggee résultats yi un peu partout mu demee noonu. et puis unanimement ci grand centre urbain yi. munoo gagné jiitu Dakar jiitu Guédiawaye jiitu Kër Massar jiitu gagné Kaolack gagné Saint-Louis gagné Ziguinchor gagné ba noppi doo jàll premier tour c'est pas possible. Mm-hmm. ba noppi Fuuta bi nga xam ne foofooy jàngat beneen bi. Mm-hmm. Euh, ay quatre-vingt-quinze pour cent lañ ci daan am. gis nga Podor ils sont au coude à coude. Mm-hmm. da ngay gis Amadou Ba cent vingt et un. Diomaye quatre-vingt. te loolu opposition mus am foofu. donc am na benn percée bu am foofu ak taux d'abstention bu mag. Fuuta. Fuuta voté wuñu. parce que da gis cent soixante cinq cent soixante onze inscrits votant deux cent vingt. motul mhm. sax moitié bi. Mhm. donc abstention bi foofu dafa metti mhm. te ca ña kii day am cent et kii am quatre vingt. rawante bi du demee noonu. loolu muy deuxième jàngat bi wane féewaloo bi am seen biir ñoom ba ñu bëri banque seen loxo. notamment ci seen fief bi nga xam ne mooy Fouta. Euh, de façon rapide daal lii mooy jàngat bi. et une mention spéciale à la jeunesse sénégalaise et à la diaspora. Mm-hmm. ak Macky Sall mu mel ni xelam dafa commencé dellu si. Mm-hmm. parce que mu ngay araftu ay nitam ci ñu bañ a publier ay résultats. Mm-hmm. comme ñoom li ñu doon def parce que moom moo gën a xam loo li muy wax parce que. ñoom ñoo mais est-ce que mënuñu dund scénario toog ba minuit yi ñëwaat. non mën a mënatuñ ko parce que xam nga 2019. Pastef amul woon doole bi mu am nii. waaw dëgg la nee na avant élection yi moom mu ngi doon baare yéegoog Macky Sall. Madické Niang ak Issa Sall dañu rejoindre Macky Sall. kon mennum Ousmane Sonko moo nekkoon opposant dëgg-dëgg en deux mille dix neuf. xaw ma ndax jàngat ngeen ci loolum jéet. dëgg la kon kooku àtte ko ñàkkal dafa doon yomb. Mm-hmm. contexte bii nag usman Sonko moo téye dëkk bi téye boo xam ne Macky Sall dafa obligé négocier ak moom. Mm-hmm. obligé libérer détenu politique. Mm-hmm. obligé def amnistie. obligé jàpp datu élection dem ca. Mhm. ba noppi di araftu ay nitam pour ñu bañ a jalgati. Mhm. kon jalgati boobu. Mhm. non kenn sañu ko fi def. c'est impossible. parce que Sénégal politiciens yi rek newuñu fi. ku fi jéem a laal résultat yi danañ ko taaj place am. lu leer laa lay wax. armée du ko nangu. askan bi du ko nangu kenn du ko nangu. moo tax li li ñuy jubilé nii c'est c'est une dissuasion même. Mm-hmm. pour képp koo xam ni dafa bëgg a dëpp carte yi. Mm-hmm. xam ni il y a une liesse populaire qui peut se transformer en furie populaire. Mm-hmm. maintenant ban leçon la ñu war a jàngat sénégalais bu nekk ci li xew yëpp depuis deux mille dix neuf wala peut-être depuis deux mille vingt et ba tey ban leçon la ñu war a jàngat yoo xamante ne à partir de demain duñ ci delluwaat. xam nga leçon yi ñu ci mën a jàng yi ñu ci jàngat. mooy dara gën sa am solo démocratie. parce que lii yëpp. bu fekkoon ne euh, jubluwuñ ci woon. empêcher mm-hmm. benn benn candidat mu nekk candidat muy Ousmane ko mm-hmm. comme ni ñu def xalifa Sall ak euh, Karim Wade. Mm-hmm. di ko xeex ci benn dossier boo xam ne dara taxawu ci. pour atte ko ñàkkal pour bañ mu nekk candidat. bu continuer di ko xeex di ko xeex di ko xeex ba tribunal. toujours pour mu bañ a nekk candidat. ñu dem ba mu fexe di wureek yow. Mm-hmm. di wureek yow ba dem ak yow conseil constitutionnel. Mm-hmm. ba muy dugal caution am sax yow yëgoo. Mm-hmm. te bëggoo woon mu àgg foofu yëpp. ba noppi sampal la ñetti nënd ñetti candidat nga éliminer ko. nga dem ba ci biir xam ni ah amul benn kàngam. ci élection présidentielle bi. Diomaye ak Pastef de su mu leen bàyyeek ñoom Amadou Ba. ñoom Pape Djibril Fall. Hmm. ñoom Daouda Ndiaye. ñoom Aly Ngouille Ndiaye. ñoom Boun Abdallah Dionne. ñoom Malick Gakou. Hmm. ñoom Anta Babacar. loolu mooy boulevard nga nga leen defal. Hmm. pourtant moo ko def moo tax mu dem ba ci biir bëgg a ubbiwaat carte bi. bëgg a dàq élection yi pour que Ousmane ko bokk. Karim Wade bokk. moo am beneen candidat nga xam ni deuxième tour tax xëj na dana mën a am. mais loolu conseil constitutionnel ni ko du ci dal. Mhm. donc conseil constitutionnel tamit foofu génnee na Sénégal ci gutte gi nga xam ni moom la ko président Macky Sall naroon mhm. kon tey jii li am. Mhm. maanaam le fait ko moom mu bañ. Euh, euh, bañ euh, Bassirou Diomaye jàll ba mujj gi yàlla imposé ko ko. loolu coobareem la. tey jii bu Ousmane Sonko nekkul candidat. Macky Sall la. Mhm. bu Ousmane Sonko nekkul député Macky Sall la ak conseil constitutionnel. Mhm. waaye moom mooy faiseur de roi. Mhm. moom mooy mooy le maître du jeu. parce que maitre Patrick Kabou. bi nekk France. li mu doon wax rek mooy téere bi. nee na en deux mille vingt quatre Ousmane Sonko sera ou fera le président de la République. waaw bu ko doonul moo koy joxe. Mhm. te moo ko joxe fi mu nekk nii comme ni mu joxe woon Dakar comme ni mu joxe woon Géejawaay comme ni mu joxe woon feneen ak feneen ak feneen. Mhm. à partir de demain yan défi moo ñuy xaar boobu mooy. Hmm? Euh, dernière question bi ma bàyyi la à partir de demain si c'est confirmé ces résultat yan défi boo ñuy xaar. yan. défi défi moo ñuy xaar. non le défi du développement de la justice euh, de de de euh, du rééquilibrage de nos institutions la refondation de nos institutions. Mhm. parce que gis nga justice dafa ndërmeelu. Mhm. assemblée nationale dafa ndërmeelu. Mhm. am na ay xeetu député yoo xam ne sax nee nañu bu bu euh, Bassirou Diomaye faloo dañuy xaru. Mhm. Euh, ay député yoo xam ne saagante xastante la ñu nekkee assemblée nationale. xam nga. loolu yëpp lu ñu war a defar la. ay ay ay ay corps de contrôle yoo xam ne. dañuy liggéey ba pare ñu jël liggéey bi dëgg ci. Euh, donc loolu dañu war a restaurer. état. Mm-hmm. bu noppi ci wàllu gestion suñu am-am ak suñu koom-koom. Mm-hmm. vraiment euh, ñu ñu ñu changé ci doxalin. Mm-hmm. ba nga xam ne euh, alalu askan bi. jëriñ askan bi financer le développement et le budget. au lieu que ay ay groupuscule di ko di ko di ko jëriñoo. waaw. ayca jërëjëf tonton Clédor Sène jërëjëf jërëjëf Vito. ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax a baax bijou ñu déglu ki nga xamante ne moo di statisticien. Euh, kii nga xamante ne moo di RFM lan la wax. ay données yoo xam ne euh, may nañu ñu joxe gum première tendance ci première tendance yooyu euh, Bassirou jomay fay moo ngi ci cinquante six virgule treize pour cent ma préciser que suñu marge d'erreur bi trois points hmm. donc bu fekkee ne moom toog na ci cinquante six yi war na ko mun a may mu mu gañe élection yi. dès premier tour. mais bien entendu ñu ngi xaar yeneen chiffres yi. ayca kon selon nos confrères de euh, la RFM fi ñu toll nii tendance yi euh, fi ñu toll nii saa si si tembe les premières tendances Bassirou Diomaye Faye remporte l'élection présidentielle avec cinquante six virgule treize pour cent selon Alphonse euh, Thiakane statisticien RFM deuxième tendance dans une heure de temps donc on sera là pour. xool yeneen tendance yi nga xamante ne moo fiy nekk fii ak euh, une de temps mais fu mu toll nii bu ñu nee saa si tembe bu nekkoon yëf yi fii dong dong dong dong lay yem Bassirou Diomaye Faye gagné na élection yi fii ci biir euh, Sénégal euh, ni ñu ko waxee sànq man ak tonton Clédor lépp loo xamante ne. ay information yu leer te vérifié euh, c'est ce qu'on vous avait promis sur trois cent euh, sur trois cent treize digital ne lépp lu ñu leen doon promettre moom moo nekk ne loolu la ñuy seetaan mais Bijou est-ce que xam nga ne suba mooy anniversaire anniversaire u Bassirou xam nga loolu hmm, xam nga ne Bassirou Diomaye le vingt cinq septembre mooy le vingt cinq mars mooy anniversaire am waaw bu dee basiru Diomaye gañe na suba dañuy def anniversaire national